that asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi centre islamique ali imran seen commission ñu dénk ensegnement ak daawa niñ ko baaxoo defee bu ñuy dëgmal aj màkk gi fas yéene ànd ak yéen ci njàngalem aj xam ngeen ne aj makk dafa soxla xam ak xàmmee moo tax centre islamique ali imran ci njiital oustaz Alioune Sall indil leen cours yooyu mu baaxoo amal ñu war koo door talaata le 18 juillet incha allah war ko jeexal talaata le 8 août incha allah ñu di ko amale ca ji du Nuur nekk ca rond point Zedo ca gannaaw banque BICIS ba bu 16h jotee Oustaz Alioune Sall taxaw ci sa kanam jàngal la lii la lépp loo xam ne dinga nga ko soxla ci sa wàllu aj màkka laataa ngay déparé fii Sénégal boo demee madinatul munawara boo demee màkkatal mukarram ba ni sak aj jeexee moo xam ci public bi nga bindu wala ci privé bi nga bindu fépp foo mën a bindu ak ñooy waaj a àndal ñu man di doon mën ngaa ñëw bokk ci njàng ma amut ak pay amut dara luñ la cay laaj lu dul ñëw toog déglu jàng lépp loo xam ne dana tax aj baax ñoo ngi ciy woo mbokki jullit yëpp rawatina képp koo xam ne fas na yéene dem aji màkkatal mukarrama kuur yaa ngi noonu war a tàmbali mardi le 18 juillet incha allah bu 16h jotee ca mas du nuur nekk ca rond-point ca gannaaw banque BICIS ba Oustaz Alioune Sall taxaw sa kanam fàttali la lépp loo xam ne moo lay xaar ci aj màkk gi képp koo xam ne bëgg na cee am lu ko gën a leer mën naa woote 77 439 04 07 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu وتكبيرات إخواني بقرآن kuréelu lépp lu ngeen bëgg a xam ci seen diine Sud FM na leen bunt bu wóor bu leer ngir ngeen am ci ay tegtal bu 8 heures jotee jàpp 10 heures oustaz Alioune Sall dina toog ngir wax ak yéen hors antenne maanaam mu ngeen ko woowee yéen ñaar dong yéenay mën a waxtaan ngeen jox ko seen laaj mu tontu leen ci nu mu gën a leeree hors antenne maanaam yéen ñaar dong ngay déggante jël leen seen téléphone ngeen woote ngir xam lépp lu leen soxal ci seen diine 8 heures 10 heures oustaz Alioune Sall ban numéro 628 98 98 ngeen bës 2 628 98 98 ngeen bës 2 bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin la Oustaz Aliou waaw de yaa moo ko mi nga xam ne moo ko laaj mhm. dafa exactement foofu nga teg sa baaraam daal da bëgg nga eggal laay ji waaw waaye Oustaz fi nga fi nga laal baax na de ndax zéro yi nu yokk ak di ko wàññi hmm. nit war naa ragal yàlla de. tabaarkalla bindal ma manuma jàng manu jàng nga bëgg ma ak écrasé rek. waaw waaw wala borom sept cent soixante dix millions yi. loolu moo waral gaañu nag. Mhm. am ci ñemewul OFNAC. waaw am ci ñemewul CREI. hee oustaz bul ma tiitalati. loolu rek la de. <laughs> bu la joxe nga yokk ay zéro. Ah. boo demee OFNAC day leer. naññ de. bu la joxe nga wàññi ay sero ah. boo demee CREI day leer. ñëpp a ko war a ñeme. Ah. ministre ak gouverneur képp koo xam ne jox na la six milliards ci suñu compte yii hmm. war ngaa ñemee dem of naag ak koo mën a doon nag ku boo ko ëppalee sa bopp rek doxalatoo pour réew mi leeratul transparence transparence loolu la suñu borom wax mu ñu mu ne kon nag wut leen ñu ko seede waaw ñaari seede hmm. washadu shahidayni hmm. min rijaalikum ñaari seede kon nag ba tey ñaari seede of naag benn seede bi CREI yi benn seede bi bu tawil amee. Mbacke loolu mhm. amee. <laughs> àggale ma laay ji. laay ji nee na xoromu na trop. fa in lam yakuna rajulayni. Hmm. fa rajulun wa imra'atani. waaw. su ngeen amul ñaari góor ñu maandu. Mhm. ngeen am genn góor gu maandu ak ñaari jigéen ñu maandu. te mucc amul. waaw. Mhm. ndax genn jigéen tollut ni genn góor ci gisunu lislaam ndax jigéen comme nopp du la seede lu jub comme fan du la seddal lu jub comme yërëm du la seddal lu jub te ñetti yi da koo jege. ndeysaan yii intellectuel dañ la wax naa dëgg rek. <laughs> kum na. du la du la seddal. du gis sa sikk moom kum fan. du gis sikk. jeex na comme yërëm. du gis sa sikk te ñett yi da koo jege. yéen leen yàlla yërëm ñoo baax. ndax sentiment am. lu la yàlla bindee sentiment am. wallaay wallaay te yàllaa ko ci jublu nag. est-ce que. moo tax muy boote du ci mer. yow sa doom fi de boo ko yoroon buy jaaw ñaar nga ne waaj kaajal sa doom ji <laughs> nga ne sa jabar kaa sa doom boo doo ko wax kaa jël sunu doom ji mukk doo jox kaajal jël xale bi kaa jël sa doom ji ah jël sa doom ji dem leen ak moom bëri na coow lool <laughs> bu dee jooy ci néeg bi nga ne ko génnal ndeysaan ne yàlla ndax la mu naaw mu ne mi man tar daw na min lu tax mu ne an tadlilla ihdahuma fa fa tudakkira ihdahuma al uxra kenn ki mën naa fàtte ndax sentiment ya ma wax. Mhm. kenn ki delloosi ko ndax tane ko ci. Hmm. waaw. léegi bu dee góor nag genn góor moom mënut a fàtte. mu jël gé mu ne bu dee genn góor doy na bu dee jigéen ñaar. waaw bu kenn ki fàtte kii fàttali ko. waaw ah. fe fe sentiment yi da du am fële sëñ Bakke fële la gën a néewee quoi. man léeg-léeg ngeen def yàgg rek ma ne da a naw jigéen yëkkati ko lislaam fa mu teg jigéen waaye mu doxal tuuti rek ñu ne lislaam moom lu mu jàppee jigéen nag moom. kii ko bind ko xam. am jigéen ñoo xam ne. ala yaala man xalaqa. Hmm. huwa latiful xabir. Hmm. waaw waaw. Hmm. Ah, ah. oto bi jaar fii di autorisé. Eh, di assurance assuré. am na koo xam ne ki assurance am bokkut ak kii assurance am. déedéet waaw. Cheikh loo xam na ko. laa ilaaha illallaah. ayca. wala yaba shuhadaa isaa maa duu. way seede yi buñ leen woo ñuy bañ. ñoom itam. waaw dañ laa woo pour ñu bind bor bi ne la kaay nga seede. xam nga pencum Sénégal lu ne la nangu ba mooy seede. Mhm. waaw seede am nga ne kaay seede mu ne man kay du ma seede fu ñu tase. Mhm. te te di seede fu ñu takke. Mhm. xam nga seede daa xaw a métti oustaz. ah waaw dañ naan yaa ko fekkee woon kaay. dana ko wax dana wax suñu borom. dana ko wax. waaye seede gi ak jaamu yàlla ñàkk se ñàkk gee seede. ak ak ak bañal yàlla la. waaw seede mën nañ koo fekkee takk nga ndax gure gi waaye tas moom kenn du ko fekk. seede loolu rek. waaw mukk. eh man kay. wala tas amu an taktubu saxiira aw kabira ilaa jili mm. bu bor bi ndaw ba ngeen di jar te bind bu mu rëy ba ngeen di jar te bind <coughs> loolu ba leen ko def hmm. moom daal boo lebee juróomi gerte caaf bind ko rek ni borom xàmban jaw ba ak jibril fall mu hmm. hmm. ko lebaloon xàbban jaw jibril fall kenn ku ci ne bi nga laati génn àddina bi nga ma joxee listu say bor gis naa ci gerte caaf maire bi amel naa ko deux cent wala maire bi amel naa ko trois cent cinquante mu ne aw ndeysaan saxiira aw kabira nga ah, loo ci boole ah. dalikum aqsatu inda allah wa aqamu li shahada wa adna allah tartabu mm-hmm. nee mm-hmm. lii mu digle moo gën a jege euh, ak maandu lii mu digle moo gën a jub lii mu digle moo gën a mën a sori nit ñi sikki sàkk bor bi quarante mille ak quarante trente illa an takuna tijaara xaadira mbirum commerce moom hmm. am jaay ma jaay la hmm. nee na loolu jëru ko jox ko mu jox la rek ah, jërul ay seede <laughs> waaw fa laysa aleykum junahun la taktubuha bu ngeen ko bindul wàññu dara jaay ma tàngal hmm. jërul bind russi mm-hmm. jënd tàngal ak jënd mburu mm-hmm. xanaa mburu moo xam ne man na mburum ndaw ko ndaa imaam Ablaye Ndaw ca daan <laughs> waaye bu dee mburu nii rek mburum ndékki jërul bindi russi jërul bindi russi waaw waaye nit ñi dañoo wóorante compte léegi ba nga xam ne dangay ngay dem ci station di sol essence dañ lay bind rosi nga yët sa patron mm. wallaahi ndax fa ngeen fa ngay jaar ak ñoom si ba wóoratuñu la waaw sax ñun ñun ouvrier yi nga xam ne dañuy dem di ndékk di jaaykati ndékk añ nag. ah waaw yow dañu jarul bind. ah parce que li nga leb xam ne ma duggul onze mille seize cent. <laughs> ay waa ji ne. Mm-hmm. mu ne. waaw. wa ashidu isaata bayaatu. Mm-hmm. xanaa daa baamtu. waaw waaw. bu ngeen di weccoo. Hmm. wut leen seede hmm. Hmm. wala yu daara kaatibun wala shahid nag kii kii bind ak kii seede bu mu loru ki ñuy bindloo bu noppee nañ teg dara loxoom waaw ki ñuy seedeloo bu ñu noppee nañ teg dara ca loxoom luñ cay teg mu ne ak ah, bu mu loru rek waaw buñ ko wone ko kaay mu jógee fii ba dëkk sàngam waaw eh, ñëw seede ba jóge géej ba tribinal di seede nit wañ ko jot mu la jaajëfaay grand merci yàlla mu ne bu ko def de jox ah. ko paas. day tax dootu ñëw de. waaw jëlal ko taxi aller retour am loo ko jox ci poosam. wallaay ndeysaan ndeysaan. ci sama borom. si ti ti. Ah, bu ngeen defee nii. seedaloo nit jox leen ko dara. Hmm. xanaa bàyyi ko muy wut ay paasam di ñibbi. Hmm. fa innu fusuuqun bikum loolu ak caay-caay la. la ilaha illallah pas normal. la ilaha illallah. mu jeexal nag. Hmm. wa taqullah. wa yuallimukumullah. ragal leen yàlla. mu nekk seen jàngalekat. Eh. wallaahi ragal leen yàlla. Hmm. lu ngeen xam jëfe leen ko. Hmm. mu nekk seen jàngalekat. Hmm. leen lu nekkul ci école yi. <laughs> jàngal leen lu nekkul ci baa yi. wa taqullahu yuallimukumullah. ndeysaan. wallaahi bi kulli shay'in bi kulli shay'in alim lépp la xam. ginnaaw lépp la xam nag. yàlla mën naa jàngale économie. mën naa jàngale social mën naa jàngale éco femme yàlla mën naa jàngale lu kullu shay'in alim moo tax tubaab bi buy jàngal sëñ Maodo fay mhm. daf koy jàngal benn branche waaw ne fii la spécialisé wu waaw yàlla buy jàngal ni du ko jox benn branche philosophie lépp la koy jàngal ni ko ko gëpp moom da mu spécialisé wu ah. <laughs> Maodo Faye ci philosophie la spécialiste wu. mu ko njuur ci la bokk. <laughs> ñam tuuti ci journalisme professionnel. Maodo ak us arabisan. <laughs> Mbaye Sama waa ji Mbacke. borom ki muy jàngal. Eh. du ko du ko def mu spécialiste wu ci fenn. ndeysaan waaw dëgg la. boo demee ci fekk maam Cheikh El oh. mu jàng noonu. Aliou kullu loolu mu waaw loolu mu jàng noonu nekkul université wa shukran ci laaj yi bokk yi bu la toxal seen ak déglu li leen tënkal xibaar yi bitim réew yi ci tubaab tënk leen ko ci wolof dellu saat ci jataay bi jërëjëf jërëjëf oustaz jërëgeen jëf ci ànd bi ak Sud FM seen rajo 11h moo jot ba teg fukki simili ñëw ci troisième et dernière partie tabarakallahu oustaz Alioune fu ñu tolloon ñu ngi woon ci sunu mbokk mu baax mu ginnaaw ba ñu gërëmee Aliou Diarra ak euh, Maodo Faye incha allah treize heures douze heures ci lay gën a yaatu Mbacké bon ñu ngi woon ci laay ju rëy ju nga xamante ne mi ngi woon ci sootu Baqara yaakaar naa tey sëriñ bi di nga eh, am na solo mu bàkkee. am na solo lool. kon ñu ci li incha allah. bisimilah bisimilah maam Thierno moo ci toog Mbacke. maam Thierno Oustaz moom indiwut ab laaj daanaka xanaa rek eh, ay siyaar la indi ak ay ndokkeel rafetlu jotaay bi di wax ne rek eh, suñu waxtaan yi ak yi ni demee war naa yaatu ba ca ña ca kaw déggu ko. ndax dafa mel ne assemblée bi fi jaaroon ak bii di ñëw daal war nañoo fexe ba mu amag wóote. dana amag wóote incha allah ndax <coughs> ñi doon ñi doon fal fal nañu te jàpp ne ñi ñu fal incha allah mën naa am ñu taxawe taxawaay bu gën mboolem yu fi mas weesu mhm. yal yàlla jàppale leen ci teñ bañ a topp liste yi leen fa yóbbu kenn ku ne wax ne sama liste sàng moom fi yóbbu kon moom laay défendre ko def rek dina baax kenn ku ne nay wax ne lan laa def bu ëllëgee ñaata article laa dugal wala nangam nangam mhm. jërëjëf ci mbokk moomu laajëm bam sa looloo nekkoon ab dugam Oustaz Alioune Mbaye sëñ Xaasim Mbaye moo ci topp sa doomi Baye jee ca Mbàkke wala ndeysaan Xaasim bu Mbaye suñu doomu Baye jooju di xaritu Oustaz Alioune Sall moom itam dugg na Oustaz mhm. dëkkandoom. waa di dëkkandoom ca Mbàkke. Mm-hmm. <laughs> macha allah Oustaz Xaasim nee na. Mm-hmm. jenn waaye ngi nii. ju waa juróom bu jigéen faatu. Mm-hmm. waaye nag bokkuñu diine. maanaam chrétien la. mais bi bi ñu ko yóbboo ci fi ñu ko fi ñu koy waajale ci église bi. dañuy dañuy ñoom dañuy ñaan ci seen diine. jox tam waa ji muy ñaan seen diine. maanaam daal mu mel ni comme affaire parité la. mu laaj nag ndax jullit mën na ñaanal ku faatu. ci doo bokk la moom diine. xam naa bii kon mooy ñetteelu yoon. Hmm. question bi ñëwal ñu seen jotaay bii. Hmm. dafa am ci penc mi ay opérateur yoo xam ne ñoo yor wàllu téléphone. Hmm. bu kii bëggee transféré kee crédit du sotti. dañuy bokk opérateur rek transfert bi daal di sotti. ndeysaan waaw moo tax jullit ak ki dul jullit bokk ñu opérateur moo tax mënuñoo transférente crédit waaw loolu rek lay loolu rek lay tekki léegi nag bokk ca ñaan ngaak dem ci ñaan ngaak yooyu nit soo xasee génn àdduna muy jullit ak ku dul jullit aqee mooy taxaw pas-pas mu amal la jóg fa ci lañ koy waajal ci lañ koy jullee ci lañ koy def nangam ci lañ ba denc ko hmm. su fekkee loolu la nag sa aqida dalay tere loolu fii nga war a yem moo xam sa sa jabar la moo xam jëkkër la moo xam lu mu doon su xasee jeex rek jeex na la ci des mbirum aqida la ay boroom ñoo koy ay ay mbokkam ñoo koy toppatoo. luy aqida aqida mooy wàllu pas-pas la wàllu imaan la. Mm-hmm. loo xam ne sunu borom bu fa mayee euh, deux sur dix. très bien vingt sur vingt wala zéro rek. Mm-hmm. wa shukran kon doo ko donn doo donn doo ko sang doo ko sang doo jullee doo. mu ngoog mu ngoog. parce que jeex na jeex na. jërëjëf ci laaju mbokkum xaasum ba tey dese sa benn laaj sëñ jullit mën na doon franc-maçon déedéet aqida mënu koo am ndax moo lay wax ne génnal ci li nga nekk ba mu set bul gëm dara loolu nag bu ko jullit doone mooy kon génn ci dina ji waaw franc-maçon al al ahraar loolu mooy franc waaw man de moom laa doon bëgg a laaj mooy la. man de bëggoon naa ko sax moom la ko luy waroon albane naa ko bëgg a tabaxaat adduna te yàlla du ci bokk. Ah, loolu benn pas-pas du genn jul du ci bokk. ñooñu la. bëgg a tabax adduna. te yàlla du ci bokk. Hmm, mën naa génnew ba xata de. <laughs> donc. <laughs> albannaa un al ahraar. Mhm. ndeysaan. ab système la daal. waaw système la ci adduna si boo xam ne dañ naa la génnal ci sa diine yi te ñoo ñu ànd. Hmm. <laughs> ndeysaan tey. dégg naa nag oustaz gars yi dañ koy tuumaalante rek man léeg-léeg ma dégg ñu ne ah diw gars yi kii la diw kii la diw ci lobby sàngam ah, la bokk waaw euh, jar nay tey nag nee nañ ndax koo ko wax mhm. nga ko génn nga ci diini ji bu fekkee du moom yow génn nga ci diini ji allahu akbar hmm. hmm. isaa qulta li saahibika yaa kaafir hmm. faqad baa ahadukuma bil kufr ko doonul kenn doon ko moom kay boo bu ko doonul moom nga allahu akbar kon de jar naa téye. lool. oustaz xam nga jiñante sax dafa dafa hmm. jiñante yow diw naa fekk nga yow diw faramason nga. waaw loolu yow góor jigéen loo ci wax nit rek bu ko doonul ñun tamit naan maam nga. waaw yooyu daa jara a téye trop oustaz. waaw tuuma de moom. Hmm. <laughs> mooy sukkuraan xaasi. jërëjëf xaasi bu bay sunu mbokk bu baax moomu lay Moodu Fall Colobane. Modou Fall Oustaz ñu ngi koy jaajëfal moom dugg na dugg bu am solo mhm. indi ay commentaire am ca dëkk bu tedd bee di Touba mhm. ak taxawaayu politique baak na nga xamante ne noonu la demee mhm. wax di yàlla indi na ci yu am solo wane ne xëy na am na fa ñu tudd di tudd politique te léeg-léeg bu ñu ko waxee ñu maasale ñëpp te am na ñoo xam ne daray caaxaan safu leen ci farata rek lañ nekk ba noppi nekk fa yàlla yàlla fay ko ci loolu euh, wax lu am solo ci wàllu nit ñu ne nga xam ñoon lañ ñi tubaab bi njàngal ci sunum réew xam sunum réew du mm-hmm. duñu xam sunu tëleel moo tax léeg-léeg sunu code de la famille bii suñ mbàkke mm-hmm. xam nga ko code de la famille ah déedéet suñu code yu électoral lii xam nga leen xanaa bu ci siiw rek boo ci arrangé wul ñenn bañ koy mbambu daal ma xam ko bu jàllee ma fàtte jeex na loolu nag leen ko def mooy réew mi boo ko xamul doo ko mën a tëralal ay loi mm-hmm. loi yi tëdd ba noppi ñu ne ko fa ñukk moo tax ngay gis kuy dox ci penc mi di def lu ñuy tere te pour moom lii kenn terewu ko dafa am jenn waa ju mas a ñëw ci Mbàkke hmm. ñu bind ci miir bi interdit de xaw ma li ñu ko ci tubaab li tere ko fi saw ko fi saw waaw ci tubaab lañ ko bind waaw Oustaz Mbaye dégg tubaab mais tàyyi naa làkk loolu xam nga tàyyi waaye waa ji ñëw <laughs> tuur ndox moom taxaw si jóg taxaw <laughs> police ba téye ko wala kay garde foofa waaw daana ko waaye da ngaa mënta jàng mu ne ko ah kay ah kay bañ a jàng hmm. baqara ba naa si kay jàng naa ko muy <laughs> mu ne ko xool liñ bind fii hmm. lu fi bind mu ne ko dañ fi bind saa faal faal am na oto <laughs> moom lool la ci gis moom kooku de xam nga ne yëgut liñ koy tere oh bi da koy xamoo dara waaye mu ne ko yàlla xam na ne xam naa dara mm-hmm. ndax baqara ba naa si mi sama bopp bi wallaay xam na dara de <laughs> nekkul analphabète mais police bi mu moo am problème. moo am problème kay. waaw parce que parce que oustaz ñoom waxuñoo xeet woowu daa mel ni. loolooy yëf yi. Mhm. ñun suñu ah. penc ñaari nit a fi nekk. Mhm. sénégalais boo xam ne bii tubaab la jàng. Mhm. yoonam nekku ci diina ji. Ah. lu mu ca for pour moom baax na. ak sénégalais boo xam ne bii ci daara ji la nekk yoonam nekku ci penc bi. moom tam lu mu ca for baax na. même droit de l'homme yi sax <laughs> l'homme l'homme yi ñuy l'homme yi gën a yi gën a reconnaître sax mooy l'homme yooyu ah, parce que lépp lu ñuy wax ci ci ci ci réew mi mu concerné réew mi mhm. daanaka ñooñu lañ ko jëkk a wax la de dëgg la de te moo ne day lu moom doy na waar xam naa ne ñu doon ñu koy firi di sax xamante si xoo dara rek lay nuru <laughs> am na solo léegi nag am na beneen laaj bu mu ci teg sax boo xamante ne nii nee na daal koo xam ne njàppam dafa toj fekk mu mm. yor ab kaamilam di jàng mm. wala jukkeem nee na diir boobu mu koy yor ndax xanaa loola dañ ko koy baal rek kon déedéet na ko daal di denc rek ne cell ndax laa yamassuhu illal mutahharuna mhm. Mhm. maanaam bu fekkee maanaam yor na ko yëg ni njàpp mi toj na mu dem di mu jël kaam di ko teg rek waaw ah, su boobaa saa soo su mu yor kaam mhm. baa njàpp di ñëwaat laa yamassuhu illal mutahharun jërëjëf wa shukran sëñ Modou Fall jërëjëf sa dugg euh, moo ci topp Cheikh Diagne Diagne nee na Moussa ki nga xamante ne maanaam jaamuwul yàlla ci mu nekkee ndaw nekk ci boppam nekk ci la neex ba xëy màggat door a daw nag jëm ci yàlla wala du dugg ci jàkk yi euh, loolu mooy atteem. rek la docteur Tahoussine waxoon. Mhm. lu ne wax na ko. ndeysaan dem aji màkk. <laughs> waaw. journaliste yi wër ko. Mhm. ne ko kii yow la. Mhm. mu ne la naam. docteur Tahoussine kii yow la mu ne naam. ah mu ne leen bàyyi leen jaam bi ak borom jaam bi te dem doxi seeni soxla lay ndeysaan ndeysaan su naan si am ci ñu xëm mm. tontu boobu tontu boobu waxee ay borom liman ah. day wàññiku ndeysaan mm-hmm. utruku al abda li xaaliqihi mm-hmm. alaa ya'lamu man xalaqa wa latiful xabir wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi su naan si am ci ñu xëm bàyyi ko ndeysaan waaye jaam bi it sëñ mm-hmm. bu kenn xatal bu kenn dindi kenn sunu borom daf ne yaa yaa ibaadi lisina asrafu ala anfusihim mm-hmm. laa taqnatu min rahmatillah wallaahi wallaahi yéen ñi defee ne mm-hmm. kii seen borom daf dul gedd mm-hmm. waaw cheikh lu wuma leen te duma leen gedd jeex tag <laughs> alayhi salaam daanañ sikkal kenn mu ne baleen jàmbur dal na Cheikh Alhaaj malik fii ci Tiwaawan radiyallaahu taala anhu waxal ci kii waxal ñoo moom rek waxal ci kii ba mu ne kan mu mën a waatal ne mhm. ci lii lay dee ah, loolu de mënuñ koo waat mu ne kon bàyyi leen ko boromam mhm. ba góor gi xëy ñoo fekk ca mbalaanam wasifa ma oh. ndeysaan wallaay ndeysaan moo koy oustaz dégg naa waa ji daan daan jël ñoll. déet moom déet moom kay damaa jaar foofu rek waaye tubaarkalla. <laughs> ñëw topp gars yi ba si mu ne ala di saboté. waaye ah. xool ndek moom mujj moom mujj yor jàkk jël di noonu moo tax tey ci mbir yi baax na de. trop sax important di xaar gars yi daal boo xam danañ ñibbi seen déet. rek <laughs> ndax ndax suñ mbàkkee ah. mujjantal geeg liñ fiy jógee kenn daa xam nu mu def dëgg la de wallaay xool jenn waay rek ne ko min ahli naar yi wallaay wallaay hmm. wallaay teel nga teel nga ah, teel nga diggante bi li fa dox ni muy bàyyi leen jaam yeeg borom jaam yi rek. wallaay léeg nga xamoon koo xam ne ni mënoon a dangale. waaw. loo ci mën. mooy takk mën koy jékki-jékki rek tubarkal. waaye bi mu dëppee bi mu ni mu jàmbaaree ci diine. te Oustaz Alioune. Mhm. keroog génn góor da baa woo ma. yow li nga doon wax danga ko doon misaal. jenn waay. Mhm. li nga doon wax da ko doon misaal mu naa mu ne ma man mii def maa ma sa dal. Mhm. daal di xam yuuxuwaat. woo na ma ñetti yoon mënut a wax. ndeysaan ba mu wax keroog naan. doom ju nekk ca école ba. yàq tubayam. ku dul yaay ko recevoir. waaw waaw yow de ndeysaan. nga xam ne fi mu ne oh. yàlla moom seexluwul kenn. ah noonu yaay ji mel ci doom ji hmm. nu ko raw la yàlla mel ci jaamam yi. léegi ñun nag ñu bëgg a seexlu kenn ñun. jeex na tàkk <laughs> bëgg a woon ne ko yàlla seexlu na la. waaw góor dañu dañuy seexlu ne ko yow nag yàlla seexlu na la. mën la ko baax yàlla laa taqnatu inna laa yàq suñu sunu jamian sunu ba jamian allahu akbar jóge leen foofu jóge leen sama diggante sama diggante ak ñoom allahu akbar naa yem foofu bala ma fi waaw non bul xam oustaz mais sëñ Mbacké dafa am loo xam ne am na ay bonne volonté yoo xam ne ñoom tam nañu gaaw trop di dañuy aar diine nga xam ne lu ci ne congal yi duñu ko nangu dañu yàq sunu lislaam dañu yàq sunu diine am loo xam ne teguñu fenn eh, eh, maanaam gaaw a jël position génne nit ci diine ji def nit ki yéefar def nit ki naafiq naa def hmm? léeg-léeg nit di woote fekk day dàqe de mu nga waaw damay woo nit ñi waaye nekk da ngay dàq nekk da ngay dàq nit ñi <laughs> ayca ayca nga bu leen ñëw <laughs> bu leen ñëw waaw dafa dina di dagg loxo rek la te te itam du'aatun ala abwaabi jahannama waaw man ajaabahum xadafuhu fiiha mm-hmm. wax nga dëgg loolu muy firi te yonent bi ma wax ne <laughs> ah, am na ñuy daawa ñoo xam ne ah. ña nga taxaw ci buntu sawar naa leen kaay leen dugg mm-hmm. te kat lislaam nañu woote waaw mu ci tur li mu ne mu ne hum min naa xaw mun min jildati na la ilaha mhm. ñu nag ñu bokki der waaw <laughs> ne noonu lan mel <laughs> xamal naa leen bu sàngoo deru béy <laughs> affaire bi affaire bi yombut de c'est pas yomb suñ bàkk affaire bi yombut yàlla xam na ko waaw ndax euh, léeg-léeg ma ma ma def ci am njàngat di julli ji romb waa ji mu toog ci garan place bi yow yàlla defal la tawféex ba nga julli ji bi nga ko rombee waroo koo xeeb moom donc même ci sa xel. waaw wëroo ko sa xel ba bu ko sa xel xeeb. waaw bu ko sa xel xeeb. wallaahi yow sax la yow ci sa bopp naan ko. waaye si yéen ñu ngi toog fii rek yéen ñu yàlla rek. Eh, santal yàlla sa mbokk ma Abdou Latif Guèye. waaw ndeysaan yàlla na ko yaa ngi fàttaliku bi ko Pape Alé invité. waaw boobu ñu ngi yimul faat. ndeysaan fekk ndeysaan bi ñu ko arrêté ndeysaan. waaw Euh, muy nettali ba wax ni Pape Alé gën na maa gëmaat yàlla gën ko wóoluwaat. wallaay ndax dama doon combattre benn système. Mhm. muy système góor jigéen la nangam. Mhm, mhm. mais biñ ma arrêté série bi ma nekkoon am na ay góor jigéen yu fa nekkoon saa ma xëy sama série jàkkaarloo ñoom. allahu akbar léegi nag tubarkalla. laa taqnatu min rahmatillah inna allah yaghfiru zunuba jamii'an allah wa shukran yéen yàlla bokk la yërëm ñoom ñëpp. amiin te xaaral àjjana. amiin amiin jërëjëf sëñ ki topp muy jibi waaw kay jibi moo ci topp Oustaz Imam Moustapha Diop bu Pikine nee na mi ngi lay nuyu ni nga firee aaye ji am na solo. merci maa ngi koy delloo nuyu <laughs> a ak Imam Moustapha Niang bu Sirmang Boy. waaw Sirmang Boy moom nee na nee na ngeen ki waaleel ko. waaw <laughs> jërëjëf euh, moom ci wàllu alxuraan li ñëwaat. Mm-hmm. rawatina aaye ju am solo jooju nga xam ne mooy aayatul kursi. Mm-hmm. nee na ndax nit mën na koo bind takk ko wala mu def ko ci jaaroom wala lamam def ko rek moo xamante loo xam ne euh, maanaam kaaraange la koy doye. waaw xam naa ordonnance daal moom mm-hmm. dem pharmacie jënd garab a ca gën. Mm-hmm. moo gën xooj sangoo. Mm-hmm. wala takk ordonnance. Mm-hmm. <laughs> dem pharmacie. dem pharmacie ñu jaay la garab nga def nga wax. mu gën xooj ko sangoo. bu dee forote lañ la jaay it nga diw rek. <laughs> daa am lu muy wax. dundal loola rek. muy mu faj la ci saay rek ci bàtti. loolu rek la. <laughs> sa dal war na nga garaaw quoi. Ah. Ah, daa mel ni Oustaz li nga wax ni ay kàlla la nag ay kàlla la yoo xam ne kooku kàllar ci woon dana am njëriñ de. <laughs> baax ah. xam nga léeg xëy benn bi jàng sumun naan jàng naa sumun jàng naa xisib hmm. ñii sonk xaside yi hmm. ñii sonk fala budd hmm. ñii jël ñii jël jaawar ñii jës te bu fekkee ne tabarukan rek la ak ak kaara ngeeg ubbiku yàgg naa gën a rëy loolu tabaarkalla waaw la ko fi indi ëpp na lool. la ko fi mu ngoog li yaxya man xayya am bayna loolu la ko fi indi. Mm-hmm. sant. li yahlaka man halaka am bayna wa yaxya man xayya am bayna kuy kuy dee dee ci lu leer mhm. ku fi nekk nekk ci lu leer moo ko fi tax a ñëw mhm. yàlla nañu ko yàlla defal nee na ah, alalu baay dafa dégg waxkat yi ñaare di wax naan alalu baay du alal <laughs> te moom léeg-léeg nee na ci alali baayam da ciy liggéey di ci denc di ci jëfandikoo yu demee noonu mu ne nag lu tax ñu ne alali baay moom du alal waaw saas Iran Ndaw yal yàlla sàmm ko. amiin ba mu agsi di jàngale ba agsi ci miiraasum bàyyi. amiin gis naa ko muy jubóole. kenn mësu ko gis nga tubaarkàlla <laughs> ñu ngi koy félicité ci jubóole googu. mu jubóole a yi jàmbaar la de. tubaarkàlla waaye dafa am lu am solo lu mu wax keroog. Mhm. mu ne dañoo toll ci miiraas góor gi. yaayam na ko ba fi sa tànk tege. alal li bàyyi du alal. Mhm. Mhm. moom lañ ko waxoon. waaw est-ce que wutil sa yëfi bopp. ah ci demal wutil sa yëfi bopp. boobu fi jóge ñu doon la waaye boo fi doon naati. jomangoog pire. ne ko solo see la acc loolu tax wolof di wax alal baay du alal parce que yaa mhm. yaa nit ñi ko bokk bu bàyyi faatu dañ lay sédd rek mhm. am déet mhm. léegi boo amee san sax lañ lay sédd léegi bàyyi dana faatu te kenn du la sédd waaw donc kon alal li bàyyi du alal loolu lañ ci jublu mooy demal nga liggéey yi ni bàyyi kër këree woon ba samp dara mhm. nga kër këree ko ba samp dara mhm. Mhm. sëñ Mbàkke soo gisee ci dëkk bi kër yu baree bari kenn miraasu leen ndax jom ji nekkoon ci baay ba mu samp kër dafa nekkul ci doom ndax mu samp kër moom mu bëgg na kër baay rek defee ab cantine defale ab nangam nangam di ñe dem ñam ñabal rek ba xëy moom tam yóbbu ko euh, euh, ca yoof wala ca beneen beneen barab xataa surtout mun ma xaabir loolu lañ jublu ci alal lu bàyyi du bàyyi du alal sukkuran ci laajam mbam sala bi suñu Mbàkke macha allah en tout cas question bu am solo la. fi nekk nii léeg-léeg nga gis taaw bu góor ci alal yi bàyyi. ndeysaan rakkee taxawaalu. loolu du yomb eh, léeg-léeg nga gis euh, ku euh, bari pexe. gudd loxo. Mhm. làqatu ci dooley jàmbur. loolu du jom waabale sa alal yi say rakk ak say do say jigéen. ci hmm? këyit làqu ci këyit hmm, loolu du jom. loolu ngor du jom bi laa nga dëgg saas. soo demee tribunal coow laa ngay kur. Allahu akbar sama suufu maam la. sunu maam ako moom miraas mi dama am bàyyi bu def mi coow li kur. Mhm. jeex na. yal na yàlla yërëm. allahumma amiin a ndeysaan. Hmm. am na solo looloo nekkoon ab laajam ñu ngi ko ciy jaajëfal bu baax a baax moom seen ji bi mbay Mbaye mbokk mi ci topp dafa lépp aw turam waaye indi na ab laajam. Mor Khoudia Mor Khoudia waaw Mor Khoudia dafa lépp aw turam Oustaz dafa wax ni jenn waaye ñu nii ju jàng ba pare xamuñu lu mu jàng la wax. xamuñu lu mu jàng ñu ñu koy loo koy conseillé. ci mu doon avocat wala mu doon attekat. bu ci doon baax na. bu mu ci doon baax na. maanaam métier yooyu araamut déedéet. moom mii def métier bi nag mooy yëf yi. moom mii def métier bi. gis nga ndox. Hmm. ndox. Hmm. ndab lu mu dugg rek ñëru ko. Hmm. léeg-léeg nga defee nit ñi dañ naan juuti métier am juuti baaxul. waaw. mu duwaan baaxul bu ñu amul ci dëkk bi àdduna tukki waaw ay métier ngi fi yu noobal yoo xam ne jàpp nañ ni métier yooyu baax te gaa yaa ngi xar ma takk def yëf métier yi baaxut suñu borom rëdd na leen wax yonent bi ne ko wax leen ni baaxut hmm. waaw atte mooy ñaara ñaara jote nga ñëwut atte leen ñoom ñaara mu hmm. moomu kay métier mu baax la bàyyi xaadima jaxate kala déggoon ngeen ko. waaw ah. allah si alay tawakkala. ca kër Makala ca kër Makala. dégg nga. avocat yi noonu la. Mm-hmm. avocat ñi dañoo defe ni fi nekk ni mooy ku ku kuy àtte nit ci lu dul noonu. avocat mooy koo xam ne kii dañ naan diw mii dañ koy tëj. ñoo tax ñu tëj ko muy daa toj ab butéel. Mm-hmm. daa toj ab butéel. Mm-hmm. kon dañ koy tëj. avocat bi nag ñëw ne nan la toje butéel bi. ñu ne ah bu fekkee da koo jël dóor ko ci tali bi moo ko tey ñu ne yaay ma ko xam mu jóg di dox far fil fil butéel ba léegi nag li article 34 26 62 wax waaw lii rengu la de 2012 euh, dana am kay code 12 12 xaw ma lan 2012 ak 2015 man ñoom niñ fàttali gars yi fàttali yi bañ na ba ba léegi attekat yi na ah c'est vrai ah mm-hmm. waaw ñu mooy woyefal affaire bi. très bien. kii mhm. kon war nañu ko tëj fukki at. Mhm. kon léegi dina fa am ñetti weer yoo xam ne affecture si la demal nga ñibbi. waaw mhm. ah. ah. ba ma ye ba ma ba ma ba ma ñibbi si. Eh, jógee ga ñëw ba xombal yenu fa gone. <laughs> yenu fa gone. <laughs> ñëwee tribunal taxaw. <laughs> ndeysaan. ah bëggoon naa ku nekk sama avocat. walaay ndeysaan. waaw. ma woo maître Babou ne ko waaw ndax jar na avocat mu ne ma non loolu jaru ko. ndeysaan waaw ah, maître Babou ndeysaan waaw ah. maître Babou mel na léegi nag su ne woon jaar na ko léegi mu woo maître El ni leen ñëw leen na yéen <laughs> wallaay ndeysaan ndax ma jot sama permis <laughs> far ma ñëw taxaw ndeysaan ñu ne ma yow yow la Alioune Sall ma ne waaw yaa fiir xale bi ma ne waaw <coughs> ndeysaan da doon ndaw lu ëpp ma ne déedéet da ngaa nelaw déedéet <laughs> yow yaay wax ci fajar gi naan yàlla yàlla defar seen numéro ma ne ko man mii la walaay ndeysaan mu ne waaw kon baax na léegi daal mën ngaa moytu loolu ma ne ko su ma sañoon du am ndeysaan su sañoon du am ndax gone ga maa ko yóbbu fañ koy faje yëkkati weccet jox jox ko ba ba vacances yi sama kër ndeysaan léegi ay mbokk la njaayam démb la fi jóge <laughs> donc keroog soxla woon naa avocat. wallaay ndeysaan donc yi du ñi koy ñi koy exercer la. wa shukran ci laaj am na solo trop oustaz macha allah. am na solo avocat yi mënta nekk waaye maître El Hadj Diouf nag yàlla na am député oustaz ndax man donc ku ku xumbal ku xumbal assemblée nag. Ah. Eh, maître El Hadj Diouf. naa ku ñaan ñu ne la amin amin ah, waaw ndeysaan wallaay ndeysaan. waaw ah, tabaarkàlla. sëñ Mbacke yaakaar naa ni ni sëñ bi firee avocat di kii parce que oustaz gars yi bari dañuy jàppale sa benn mbir. waaw gis nga jékki ni fan yee passé dégg naa ne ñooñu benn waaye ab dëmm la wala benn jigéen boo xam ne ab dëmm la waaw waaw mi di fi fii si réseaux man de bëggoon naa ñu jàng ci loolu hmm. la ca Cheikh Alhaaj Malick wax radiallahu taala anhu ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si waxoon na ko ci genre de course yal na yàlla yokk ngërëm moom mu ne hmm. aada dafee saxal dara ba ñëpp gëm ko muy dëmm muy hmm. nit kuy lekk nit ni moom laa ilaha illallah mu ne ku jàkkaarloog nit wax ko ko allahu akbar hmm. ku jàkkaarloog nit ne ko ab dëmm nga hmm. yàlla dana la duma suba liggéey waaw nag mën naa feebar wax lu ne waaw nit hmm. mën naa feebar wax lu ne waxoon naa suñu mbàkkee ma ne ko dafa amoon ñaar ñi demoon dëkk sàngam nawetaan yi ñoo bokk ndey ak bàyyi bi ñu la te ñibbi si kenn kaa ngi daw morom ji parce que dëmm la nee ndax waa dëkk waaye koy tam. <laughs> <laughs> waaw. waaye fi ne ku feeñ ci dëkk bi. ñu xam la fi. Hmm. mbaa ngi am xaalis. mbaa nga siiw wala naa nga mel kenn du la ko wax ab doxandéem mm-hmm. rek lañ koy wax wallaay wala ku néew doole ku néew man kay léeg ko doon wax ay nit ñoo xam dañoo néewoon doole waaw bañ amee doole ñi leen ko doon wax jaxasoo nañu ñoom na tàkk moom daal ay phénomène la rek xeetu tooñ ko baat bi ni ko olof tuddee dañ lay tooñ seytaane ci liggéey mm-hmm. waaw dafa bëri ay jumtuwaay siraatal mustaqim ci jumtukaayu seytaane yi la bokk seytaane ay jumtuwaay tey ca mbargee bu amoon gone gu fay jooy naan bàjjan nogay toogal hmm. léegi <laughs> tey tey nogay dugg de billaay ne rubb <laughs> waaw te mu te <laughs> tubarkalla jërëjëf Oustaz sëñ Mbacke jërëjëf mbokk moom lépp tur lii waaye jarul woon lépp tur nag waaw njaay njaay doos dina na jarul lépp tur wax dëgg jarul lépp tur nag lii la di la woo na la ah, naa la tey woote garajo tey woote garajo ak naa la xam naa la waaw li moo ko jàngale ah. lépp tur lépp tur bi. bii kolos. <laughs> waaw dëgg la mu ko fi indi de. kolos tamit gars yi war nañu ko jox droit d'auteur. <laughs> Ah, ci lan noonu kolos. Hmm. daa mën li muy def. mën na li muy def te ay kàddoom teggi. non non ab loo yéen bu aay moom amul fenn. <laughs> looyeen looyeen bu man li muy def moom. <laughs> Eh. looyeen daal bu doon jàng alxuraan xayrun waaye li ci def moom. <laughs> moo taxit daal di sàmm. ndeysaan bi Alhaji Fallou Diop moo ci topp Mbacke. Alhaji Fallou Diop moo ci topp ñu ngi koy jaajëfal Casamance lay wootee. Mm-hmm. ñu ngi koy nuyu baax a baax. dafa duggoon mu dagg mu duggaat indi naab laaj nag ba mu ñëwaatee. Mm-hmm. laaj bi daal nee na dafa bu indi ay cant ki ngërëm ak rafetlu jotaay bi ni muy mm-hmm. doxee ak wax la waa Casamance namm nañ la. nee na dafa dégg ñaare booy wax ak yenn waxkat yi dañuy wax baada audu billahi mina shaytaan rajim mu ne baada jooju lan la ci ah waaw ginnaaw def ne ginnaaw ginnaaw aouzu billahi mina shaytaani rajim mooy jiitu ci li ñu di wax kon mu wax aouzu billahi mina shaytaani ak mu wax ginnaaw aouzu billahi mina shaytaani rajim ñaar yi sotti la ci ak def ci waaw ñaar yi sotti sotti ci la ak def ci ginnaaw aouzu billahi mina maanaam mooy kon li muy tekki mooy ginnaaw a'uuzu billaahi mina mooy ginnaaw bi ma waxee a'uuzu billaahi mina rajim ba pare hmm. léeg-léeg wax ko <laughs> hmm. loolu lay wax ne kon jërutoon nga naan ginnaaw bi ma waxee a'uuzu billaahi mina rajim ndax wax ne a'uuzu billaahi mina rajim ndax wax nga waaw omare ma loo rek tawakkal waaw baax na <laughs> xam naa day tegtali ne waa ji xam na li muy wax rek jeex na waaw mooy li mbër wax na ginnaaw ban sant yàlla julli ci nabi sallallahu alayhi maa ngi sant sama ñaar waay jeex na daan ne bekkaay kii <laughs> <laughs> li ma liggéey xajut ci moom liggéey xajut ci moom. bilaay bis moom békaay wutale combat. daan ah. xam ne tubaarkàlla. Eh, oustaz bi tey ngaa tàggu say bokk. dëgg eh, la mii di say bokk. tey non làmb ji yàqu na moom kay heureusement. Eh. làmb amatul Sénégal làmb ji yàqu na. <laughs> xaaral mbapat ndax. xaaral ma bënoon bëri woon benn combat daara ji àgg. yii dama ni. ba baal ma woo Père Birahim <laughs> Père Birahim. moom du seetaan loolu. du ko seetaan mu naroo ma jox mu bëreel ñu ko. <laughs> mu ma ko tuddee woon. nees. ma ma ma ma nekk sëriñ bi. nga nekk sëriñ looloo gën a jub. naa bàkku Oustaz Mbaye moom sëñ bi laay ñëpp maa leen dëgg. dinaa ko jox illa yasadul kalimu tayyib. waaw bi ma sëgg. ndax daan du ma daanu. ndeysaan waaye tam da nga ciy génn de eh, ma ko nooy rek Mbacke. <laughs> ay ca <laughs> ci topp Oustaz Mbaye sëñ Assane moo ci kër Babou Ngone. Babou Ngone Oustaz moom de laa jëm fële ci alxuraan la ci surtout xalam naa mi ngi tombé fii euh, laaye set yaakaar naa ci boor boobu incha allah ak <laughs> mi moom euh, suratul xalam <laughs> inna rabbaka huwa a'lamu inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa a'lamu bil muhtadin <laughs> fala tuti' kullal mukazzibin waddu law tudhinu waaw sunu borom day ci suratul alxalam mm-hmm. alxalam mooy tekki bindukaay mm-hmm. yàlla giñ ci bindukaay googu ginnaaw bi mu bindee ci noonu ak mbooleem lu bindukaay di bind ba ëllëg moo xam euh, clavier la moo xam lu mën a doon rek bindukaay rek la wax mu looy giñ mu ne koy damay giñ ne yow Muhammad Baadoo la woo maa anta bi ni'mati rabbika bi majnuun bi majnuun yow Baadoo la woo sa ñàkka baadoo la dana la jural la ajran xayra mamnun mm-hmm. sa ñàkka baadoola gi dana la jural ñu fay la tuyaaba ju bari ju du dagg ba yomal xiyaam mm-hmm. mooy doo xewi mm-hmm. déedéet <laughs> xewi du xewi mukk fatara yi waxoon mm. xaar leen ko ba mu xew ndax waykat yi xewoon nañ mm. suñu borom ne ko ah danañ fi yàgg dana <laughs> yàlla jëlaalu allahu akbar la ilaha illallah mm. ma xamal la ne innaka la ala xuluqin azim jikko jikko ju mag ji ci àdduna hmm. bu deew fas hmm. teg nga ca teg ga hmm. warte kaw def nga dëgal ya jël nga laab ja yaa nga ne togg ca kaw di dañal di wéy di dañal di wéy ah, lii may wax nag fasatu bu siru wajub siruun dana la ma sa leer leer leen leer na nañ yàlla jalla jëlaalu tey lii ma la wax nii dana la ma sa leer yow leer leen ñoom waaw bi ayyukumul maftul <laughs> Hmm? Hmm. waaw ana kan ci yéen moo na ci fitna yi xamul lu muy xëy xamul fu muy gont tuñ tuñ rek. Hmm. yow nag tegge nga ci fas wi. commencé ngaa dem yaa ngi dem. ku la topp dem. <laughs> allahu akbar. <laughs> inna rabbaka. huwa aalamu bi man dalla an sabili. huwa aalamu bil mu'tadin yàlla bu ne ñaar moom kenn gënu ma koo xàmmee. man dallaak. Euh, an sabili muhtadin waaw. man ihtada ak man dal mhm. ñaar yi kenn gënuma koo xam mhm. hmm. ki jàddu yoon bi maa ko gën a xam ñëpp ki maa a xam ñëpp bàyyi samay jàmm allahu akbar mhm. falaa tuti'il bàyyil di topp nag ñi nga xam ne weddi rek mooy seen liggéey <laughs> critique gi <laughs> ñoom Ablaye am naa waa joo xam ne usa hmm. ni mu hmm. dara weexul dara ñuul jeex na tak <laughs> waddu law tudhinu fa yudhinuun hmm? bëggoon nañu nga nooyal ñu nooyal mhm. te yow li nga yor nënguwul nooyal waaw ñoo yow li nga yor nanguwul nooyal mhm. Mhm. waaw ñoom bu fekkee la ñu yor mënees na koo nooyal yow moom li nga yor nanguwul nooyal ndeysaan wala bul topp kii mu lay wax nag waaw kulla xallaaf ab waatkatub giñkat bu xëyee bul xëyee giñ kat waaw ku bari lu muy giñ. Mm-hmm. lay wax dara amu ci. lu mu wax rek giñ. mahiin doyadi. Mm-hmm. hamaas doon góor ba noppi ragaju. machaa'im mm-hmm. bi namim. foo ko seen musalu dàllam daa bëgg a rambaaji nit ba jaxase lan ba dootuñu ànd. la ilaha illallah. mannaa'i lil xayr. lu mu yor muy lu baax kenn du ca mos. tey mu'tad. mu'tad fu ñu ko yem loo mu weesu ko. afiim afiim bàkkaar ba fees del <laughs> utul dafa wang <laughs> wang góor gu wang góor gu toogukaay gi xaw yàlla xaste di <laughs> yàlla da xas na góor keroog baada zalika sa nimti xamuñu bàyyam mu ne ko bu ko topp allahu akbar boo saagaante moom ci pénc bi rek moom mu am li daa am ku doon gaaruwaale mais yàlla yàlla daa mel am na ku muy fii de. am na ku muy gaaruwaale te gars yi xamoon nañ ko. waaw waaw. <laughs> Ah, waaw tudd tur waaye am na ku muy wax. yee te te mu bàyyil ko fi nag ku ni mu jël xam nga ca kooku rek lay yem. waaw waaw. waaye comme def na kulla xalaaf rek. waaw jorul muy tudd tur. cay jaajëf ba yomul nga doon ko. nga doon ko rek. ndeysaan xam naa li sëñ Cheikh ne yàlla daal léeg-léeg muy xuloo di xuloo ba nga ne xuloo rek la man fii de xuloo na fi. walaay ndeysaan. otul ah, dañu laal waayam. Ah. waaw waaw Mbacke tur man de utul moo ci jàpp waŋ moom jàpp na ko ni ba mu des góor. góor ak waŋ. taar la ci jigéen de. Mm-hmm. baax na jàpp yow xaf la ci góor <laughs> ay góor la ko gis rek <laughs> sama borom. seetlu leen ko rek. góor moom boo ko xafee. Ah. boo ko waxee xas nga ko jigéen nag boo ko waxee moom day gën a defarwaat rek tubarkalla daal di soppi doxinam de waaw ne la a tooñe waaye a tooñe <laughs> waaye boo ko waxee ne jigéen jigéen ñi hmm. billaay diw nim nayee hmm. dañ la yàlla na tawti waaw taw soxor. Hmm. yàlla parce que diw mel nangam. waaye boo nee diw dee. <laughs> defatu fi dara. <laughs> defatu fi tus walaay wax nga dëgg sax xam nga keroog da nga koo woon fii waaw bi nga waxee ni jigéen dana nopp ni ndax matériel man laa oustaz matériel dong di sëyal koo xam ne yorul dara waaye la nga kàlloon noonu ba làqarti hmm, a xam <laughs> oustaz bay doxal eh, barke bul maa dox <laughs> doo jàll saa saa rek barke nga kenn mësul gis lii rek yàlla oustaz daal dañ teg suñu baram ci ortul moom ortul daal yàlla na ci yàlla yërëm rek amiin mhm. kooku mooy Assane Samb te Babou Ngone luy surtout xalam loolu laaj léegi mhm. des naa dese na dese mu mhm. muy jenn waaye gi nii di julli waaye bi jàngee Fatiha ba ci wala dool yi dafa jàng aw saar ba saar ba jeex mu tegaat ci aw saar maanaam tegalewu aw saar ci bi benn rakka yàqul yàqul julli waaw comme neex tegale ñaari saar ba ñett ci ab rakka yàqul julli amul benn muskil insa allah falaa sujjóoda ali moo xam moo ko tey moo xam teyu ko parce que shukran Mbacke ginnaaw mbokk mu baax mu jaatu xamtu caatu xamtoo ci topp oustaz ñu ngi koy nuyu baax a baax di suñu soppe boobu nekk ca naawel di taalibe bi sëñ Moussa naawel la nga ñëwaatal ko ci rawatina nag diggante mag ak ndaw jikko yi ñu war a sàmmonteel jeexital yi nga xam ne ñi ne ci daara yi tarbiya yi tarbiya dana ko def ci ñoom baax na incha allah danañ ci bàyyi xel ci suñu waxtaan yi nga xam ne mooy ne suñu kanam ci fajar yi ci albidaay ñoom seen yooyu mm-hmm. waaye daal jikko moom sëñ Mbàkke mm-hmm. moom la yàlla teggoon yonent bi léegi ooy naka laa la xuluqal azim mm-hmm. lu ci waay am rek na xam doyut alayhi salaatu salaam nee na yomal xiyaam ñu bëgg a dugg tribune officielle a mooy borom jikkoy rafet yi wallaay ndeysaan yal rafet nga xam ne du ñu mer du ñu rëy du ñu tiitaru du ñu nay ila axirihi wa shukran ci laaj mbaam sala boobu torkal torkal ay ca Oustaz Mbaye suñ caatu xamtu loolu nekkoon laajam Mouhamad Amin Badji moo ci topp jërëjëf xaar caatum xamtu torkal Mouhamad Amin Badji Oustaz eh, dafa dafa dafa ñu woote laajoon na ko mais ba tey da koy gën a laajal rek bëgg ko ci gën a gindi d'accord nee na moom soxnaam dafa faatu mhm. bàyyi kooki doomam mhm. Euh, mu jël alalam moom ak alal soxna soosu. Mhm. boole ak léegi dem na ba alal ji daal jaxasoo alal yi boppam. Mhm. Euh, daaw na ci jëfandikoo nag ak ñoom. Mhm. léegi nag nga xalaat naka lay def ba waaj ba xaajal ak alal jee ak alalam ak yooyu. wallaay ndeysaan jërëjëf ci laajam mam solo boobu. xam nga euh, sunu borom subhaanahu wa daf ñuy wax ci wàllu. alal yi jirim. dafa am rek lu mu ca tere. waaw. lam ca tere bokk na ca lekk ko ngir balaa màgg mu yeex wabtalul yatama hatta isa balaqu nikaa yor leen jirmiti di leen nattu ci xaalis bañ toll ci takk mbaa ñu takk leen su ngeen giseen toll ci takk mbaa ñu takk leen fadfa'u ilayhim amwaalahum jox leen leen seen alal ngeen leen yoraloon wala taakuluha israfan wa bidaaran an yakbaru mhm. bu leen ko lekk ngir yàq mhm. bu ko lekk ngir yàkkamti balaa xam dara mhm. bu ko def ah wa man kaana ganiyan koo xam ne kii am nga dépense fal yastaafif moytul seen alal tegal leen ko ci barab waaw ah, denc bu dee lu bari nag bu ko dencee te doo ci yaxantu asaja jeexal ko kon nag fa liyastaafif hmm. wa man kaana faqiran hmm. koo xam ne kii tani woo xale yi hmm. fal yaakul bil maaruf na cay doom piy lekk waaw yaag ñoom waaw waaw ah c'est déglu waay donc ñaari affaire rek la waaw wa man kaana xanin moo fekk ak wa man kaana faqiran bu fekkee yoroo dara di domp ngeen di bokk lekk waaw bul wax ne alali xale yi la bu seet ganaar ah. del def léeg-léeg palaa jeeg bu dayal léeg-léeg beneen palaa léeg-léeg beneen palaa mbaxali saalum ak lu ne nga koy def waaw neex ba seen alal ji di sakkan nag yaxantaw mën nga xam lu ne ganaar waaw waaye nag euh, tabarkal sunu borom mhm. wax na foofu lu am solo mhm. waaw bu fekkee yor nga nag dencal leen ko rek tey lekk ci li nga am te leen jox ñoom tam ñu lekk ci li nga am mhm. bañ màgg insha allah am na solo ak jàmm yàlla lu bu rëy rëy masha allah est-ce que jërëjëf euh, Mouhamadou Lamine ji kon nag euh, ka ca topp mooy Omar Gningue Dieng Omar Dieng Oustaz moom ñëw na indi ab ji ay jàngatam ci jotaay bi. Mm, ma ngay wootee ca Kër Massar su ma jumut nee na ab directeur école la di jàngalekat. nee na dafay waxtaan daal ci wàllu ñi ñi nga xam ne dañuy tere yalwaan ak di tere loo xale yi yenn xeetu liggéey yi. nee na nag ak ne ci mbedd meek lu ne ñu ne dañ koy tere xale ndax bëgg sagal xale protéger xale. Mm-hmm. nee na mu seetlu am ñoo xam ne daal am na lu ñuy woote. Mm-hmm. di ci woo ay gone ay xale daje di fecc. am ay seen petit galle di am ay sponsor di am ay. nangam nee na ñoo ñaat ña ngay liggéey loo xale yi. waaw ci lu wér. <laughs> te loolaat gënul ci xale yi. lu ci lislaam wax. lu ci lislaam wax mooy xale nañ ko bàyyi rek mu nekk xale. Mhm. buñ ko jàngal am fa. Mhm. buñ ko def un petit star. Mhm. buñ ko def un petit nangam nangam. nañ leen bàyyi ñoom xale yi. ñu nekk xale. ñu def ci ñoom ab yar. def ci ñoom bëgg seenum réew mhm. def ci ñoom xam li nekk mooy lan mhm. def ci ñoom xam seen ëllëg mhm. ndax fa kullu man baadara waxta si xari ilal xudastaraaxa waxtal kibari gone ñu bëgg bu buñ màggee noppalu nan ko teg ci yoonu yoonu noppalu bu àggee noppalu buñ ko tegee ci yoonu yooyu rek mën naa am euh, la Euh, noflaay jafe ko. wa mhm. shukran ci laaj bi. wallaay wax nga wax nga dëgg de imaam li. Mm, waaw jërëjëf kon nag yaakaar naa leer na moom mujjoon na dugg tamit dafa indi ay ziar rek ca mhm. kon yaakaar naa ne oustaz loolu moo doon laaj yi nga xam te ne ñooy yi fi rot. tabarkalla kon xam naa dil si waat rek na lu ngeen indi bu bëccëgee incha allah maa ngi ci yonent yàlla Ibrahima alayhi salaatu wasalaam bu guddee maak imaam daañu dellusiwaat ci al bu min nu jotee ñu ñëwaat nag ci jaar jaar yi magi réew mi incha allah borom almisbah ak xamtu looy indi ci xamtu incha allah oustaz xamtu boo noppee ci tafsiru quran bi dinaa ànd ak mbokk yi ci suñu jotaay boobu ci laaj yi ak tontu yi incha allah jërëjëf kon man de maa ngi del soit ci fat yi ay aaya neuf tey mooy nekk suñ trente et unième épisode wala si asala rasula bil huda wajjinil yi kon nag lu jub ci wax ji. suñu borom la suñu lu ci jubul. ñun la ñun ñii la ñoo doon jéem ak wóotu ñi nga xam ne ñoo warantoo ci jataay bi. yàlla yàlla defar seeni mbir. defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.